asalaamaaleykum internet bi yow may ñi xamul ngi conseiller en immobilier donc tay euh, dañu bëgg ben internet yi la radiation duñ ci mais dañ ci def ben aperçu rek choses basiques ko képp ki nga nañu mu cabinet bi pour ñu euh, radiation pour résumer ko rek mooy lan ne euh, monsieur Mbaye jënd titre foncier ci notaire bi jënd titre foncier waaye daf ko banque par exemple monsieur Mbaye bi mu jëndee leb ko banque banque jaar na notaire transaction bi waaye conservation notaire bi day jël def euh, euh, transaction ba pare diggante banque bi ak monsieur Mbaye day jël kayit gi ko au niveau de la conservation foncière aux impôts et domaines comme quoi kat droit ba fay génn day wane na hypothèque la nekk maanaam kër gi wala bi banque moo ko jaay monsieur Mbaye kon ça veut que ne tey jii ci jamono yooyu képp ku demoon laaj droit réel waxoon naa luy droit réel mooy information yi ci lay nekk képp ku dem di ko laaj droit réel ba da ngay gis ne lay nekk ci charge yi mooy hypothèque maanaam dañ ko banque bi moo ciy nekk léegi nag supposons monsieur Mbaye fay na banque ba mu jeex mu xëy bëgg koo jaay ba léegi la ca nekkoon ca banque ba donte sax fay na banque ba pare wala ci kaddu la yem il faut ñu fësal ko ci ay kayit te ka koy fësal notaire moo koy def loolu lañuy tuddee radiation maanaam wax ci këyit gi ne monsieur Mbaye mii kat man notaire monsieur Mbaye kat. fay na la ko waraloon yépp ak banque ba nan lañ koy defee mooy gannaaw ba nga fayee frais notaire bi ba pare mooy frais yi mu koy liggéeyee notaire bi dafay jël dossier bi yóbbu ko ca banque ba banque bi paraphé banque bi signé confirmé ne kat ah man banque x man banque x d'accord naa ne prouvé naa ne monsieur mbaykat kat fay na xaalis ba ma yorloon ñu jëlee kayit googu notaire bi jël ko ci banque bi tamit indi ko yóbbu ko conservation foncière pour wane ne kat ah monsieur mbay mi kat fay na bu ko defee conservation foncière ñoom la ñu yoroon comme information dañ koy changer buñ ko changer dindi loolu ba mu set bu ko defee yow boo demandé droit réel lay feeñ ci droit réel ba day nekk néant donc lii mooy radiation ma résumé ko du dara lu dul yoral nga banque banque bi xam ne yaa ko yoreel yóbbu nañ ko conservation foncière lañ fay jàpp mooy ne képp ku fa demander droit réel ci maanaam titre foncier boobu lay génn mooy hypothèque moo ciy génn léegi nag pour ñu dindi ko notaire ba nga koy dindee ji da ngay fay rajo notaire bi frais de radiation yi mu jël dossier bi yóbbu ko au niveau de la banque banque bi tontu ko mu jël ko moom notaire bi delloo ko conservation foncière conservation foncière gome la fa nekkoon hypothèque ba def fa charge néant mooy léegi leer na na monsieur Mbaye yowtu fa dara lii mooy radiation képp ku ne ku ci bëgg lu leer dañ ko résumer rek des na ay clé des gën naa xóot ku ci bëgg lu leer rek mën nga jege cabinet bi bu ko defee ñu gën la ci leer ku am dossier bu mel nii cabinet bi mën na la ko doxal ba sa radiation dañ maa ngi nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp di leen ñaan benn mbir rek mooy ñaar ba ñett mooy ñi nga xam ne abonné wuñu sa sa premier venu ma la koy ñaan nga abonné pour jàppale communauté bi jàppale cabinet bi deuxièmement mooy bu ci yam na nga bës pouce bi ci suuf nga bës ko di la ko ñaan troisième requête mooy lan mooy nga partager vidéo bi ndax monde entier jot ci tiyaaba bi nga xam ne am nañ ko ñëpp a ko ci am di nuyu ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax monsieur Mbaye MTM immobilier